والقلم وما يسطرون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 بنعمة ربك بمجنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfate Serigne maa ngi sant yàlla bu baax tey julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa tey sant ku tedd ki di ñaan yàlla sama kàddu yi yàlla na fekk ñëpp ci jàmm maa ngi ñaanal ñëpp xew-xew bi ñu dëgmal muy guddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fekke ko euh, te tal ko di interpeller di di di wax ci ay kàddu yoo xam ne ñu bare bare bare ñu ngi may woo di ma ci laaj ndeysaan moo mel ne nit ñi ñor na leen lool ba ci kanamu sa borom kàddu yi nag lépp lu ci rafet na ngeen xam ne suñ boroom ak matam rek la waaye lu ci dëgg dëng na ngeen xool xooli xal insaana daifan mata dig doomu aadama rek te jéggal ma ko sa xam ni lu rafet rek moom ma tax a jóg muy jëmm jooju di Cheikh Omar Diagne ci li nga xam ni dox na digganteem ak njabootu ku tedd ki moo ne njabootu nag taalibe yi ñëpp dugg nañ ci biir ci gisin bun gis ni dafa yëkkati ay kàddu yu juunoo ak ma mu jëm ci seexul xadim maa ngi ciy lu àq en tant borom kàddu en tant que njaboot xam naa nag ni ma ciy waxee dana xaw a wuute ak ñu bari niñ ciy waxee ba ci njëkk mooy maa ngi seeral nit ñi ni man rafetluwuma kàddu yi ñaawlu naa ko lool kàddu yi ma dégg man mu génne ci gémmiñam d'accord rafetluwuma ko de te ñaawlu naa ko te xeeti waxtaanam yu mel noonu yu ci baree bari itam jëm ci ku tedd ki man duma koy rafetlu wax dëgg fa sun borom waaye nag mbir mi maa ngi xamal ñu bare baree bari ni li ci xaw a lëndëm ci sama bopp mooy ñaari mbir ba ci njëkk mooy daa mel ni combat bi ay politiciens ñoo ko porté ndax li ma jaaxal ba jaaxal ma mooy wax ji nga xam ni wax na ko depuis deux ans ñaari at ci ginnaaw lu teewoon ba mu ko waxee ca tàng-tàng ba ca booba ñu teewoon a jóg lijjanti ko euh, def seen attaque wala dem fa mbaxane doone benn ak laaj lan moo tax mu di ko def comme ni ñu def nii ñu bàyyi ba mat ñaari at ñuy koy doog a sulli ñaareel ba mooy leetar bi nga xam ni moom lañ jël ba suruxal ci yépp ki nga xamante ni bii ni moo yore kàddug yoon wi di porte-parole bi yëkkati kàddu ni yëgut ko xamul fu mu bawoo ci waxin ndax moo ko wax gisul leetar xamul fu leetar bawoo loola waran ñu lëmas ci ay kàddu yoo xamante ni bii nii moom waxoon na ko dippi ñaari at loola li ma jaaxal mooy lu taxoon boobu ba léegi lijjanti ko ñu bàyyi ba tey ñu koy doog a lijjanti ba ca toppaat mooy ñi ma gis ñu porté combat bi ñoo la demal sama xel ndax ñooñu ay politiciens lañu kooku ñuy wax euh, waaju ju jàng mooy kii wax di mel ni kuy macc tàngal rek kooku ab politicien la sëñ boobu sant dooli itam mbàkke boobu mbakke boobu ab politicien la ak ñeneen ñu ci dugg ñoo xam ni waxi Cheikh Omar Diagne daa mel ni dañ koo jël di ci lëmasaal li naan dàqum ginaar waxaale say soxla nit nag bu fekkee da koo jiñ ni terroriste la da koo jiñ ni gëmut mag ñi dem nga ba yegg sax jàpp ni bu fi toogee day xeex kilifa diine yi fexe nu mu fi jëlee tarixa ña nga xam ni ñoo gëmul woon loola te bokk ci yoon wi rus lool am kersa te yàkkamti yàlla leeral tuuma jooye suñu borom dindi ko ba mu set wicc mu mel ni li ñuy gis ci saayir sax daa mel ni war ma ju ëpp joo xam ne ña fi nekkoon daa daanañ ko def war ma ju ko gën a kawe daa mel ñii fi nekk moom lañu wan kilifa diine yi amatoo lenn looy wax ngay buruxlu ci ay kàddu yoo xam ni kenn rek la concerne te ba nga ko waxee yàgg na bëgg cee lëmasaale ñoo xam ni bokkun sax aw doxin ca loolee loola man lëndëmal na sama xel lool ba tax na rafet lu ma waxe Cheikh Omar ji de waaye nañ bàyyi xelit ñi porté mbaa bi nañ bàyyi xelitam vidéo yi kañ la woon nañ bàyyi xel itam li sabab wax ji lan la ndax sëriñ tubaa moom ñun ñëpp gëm nañ ko te képp ku dëgg ku ne jaral na la sa bakkan bi lu ñu amit moo ne ko may kon yemale woon kook dara waaye coow da du jóg rek riir nga daal di riir tàbbi da ngay settantal coow lii fan la bawoo ñan ñoo porte coow li lan mooy ñan ñoo porte coow li lan moo ko sabab ak yi ca aju yëpp loolu it daa a bàyyi xel bu baax a baax kon nag maa ngi ñaan ñëpp am jàmm tan dund sëriñ bi ci yar ak teggin te war maalante te joxante cër te xam ne li sëñ Tuuba li suñu borom defal seexul xadim ama Seex Omar Jaañ dootu na ji dindi ko loolu ñëpp xam nañ ko mënu ko sax ndax ñu gën a dansé Seex Omar ñoo fi nekkoon te mbirum sëñ bi daa gën a yëkkati ko kon nañ xool bu baax mbir yi ñi ciy dugg di ci boole lu ci bokkul gis naa kilifa bu baax ku ñaw muy doomu Cheikh Mouhamadul Muntaqa la yaakaar naa mooy xalifaam mooy taawam wax wax ju rafet ju tedd joo xam ne boo ko digloo ak xel di nga xam ni kii li muy wax lu mu xam la ndax fexe na ba mbir yi mu génn ci ñan ca bëgg a dugal te it maanaam mën naam sax man ni ma leere ni am na vidéo yoo xam ni daawaati jéeg la ak nangam sax mën naam leere wu ko noonu ndax waxi daaw jéeg ku koy dëggal ren am na loo nar loolu nañ ci bàyyi xel bu baax wax ji nag sàkkuwuma ci ku muy neex wala ku muy naqari la ma cay sàkku mooy la ciy sama gis-gis tam tamuy lu ma gëm